asalaamualeykum wa rahmatullah kon ñu ànd ak ci seen naafila guddi tey incha allah muy dëppoo àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru me atum deux mille sëriñ bi dafa wax ni guddig ñaar fukkeel ga ak ñeent ku ca julli juróom benn rakka bu ci ne nga jàng ci fatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon ne loolu ku ko def dana tàbbi ajjana te des ko isaab kon julli gaa ngoog yàlla nañ ko suñu borom man loo te ñu def ko def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko laaqal ñu ko fa yàq eggul bi barkat ahmad al xadim wa salaatu wa salaam ala rasulillah